Mbikum njiiti réew mi Macky Sall dem na ca Njaasaan ngir yóbbu njaalem réewum Sénégal ginnaaw wàccug liggéey xalifa général bu Njaasaan Cheikh Bekay Kunta Le Soleil yéene kaay ne ba mu heggee nag waa Njaasaan ya fañ koo gërëm moom njiiti réew mi ci taxawaayam ak lam leen defal seen dëkk ba la mu def moom xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mooy na fa hebal délégation bu mag ca njiiti réew mi Macky Sall pale ba ngir daal koy dénk regard yéene na ko xalifa générale des fa waar njiitu réew Macky Sall critique kaay dëggal ko na ko fañ yokk sant ko mu sàmm dal ci réew mi ak jàmm wal fajiri yéen a kaay jàpp gi ñu bëggoon a jàpp Ousmane keroog Casamance la tax gaay yi génn ca léppañ ca biir yéen a kaay ba turbine yéen a kaay na ko ki fi nekkoon njiitu ba Amérique moom Barack Obama moom fa wax njiitu réew Macky na ko ñetteelu mandat teg ko ci suuf bul bokk 2024 ndax fa nar a jël fitna ci réew mi waa jañuy wax politique may na ko soxna Mimi Touré mel ni ko daan ko faa lay xamal leen na gis nga Macky njiiti bés bu taxawee na fay bokk 2024 ministre yu bëri fañ koo nar a bàyyi ndax d'accorduñ ci kàddoom yaa ngi ci le quotidien yéene kaay kàddu yi Pape Djibril Fall tey mi ngi ci yéene kaay yu bëri bokk na ca indépendant yaaw seetal yooxu yéen ko doon yooxoo keroog ca ndajam F24 ya fa ko naqari lool ñam ca tuumaal nag du ñeen ñu may waa Pastef yi nee na ñoom la de lii yéene kaay ne Pape Djibril Fall kay fa wax ay dëggam na ca bëgg des ci ak nguur ak bëgg nekk président daal di ñàkk seen bakkan nee na am na ay militant Pastef yoo xam ne fa ñuy wax déclaration yu garaaw indépendant na ko yow koy fa nga attaqué waa Pastef yi waa Pastef yooyu nag seen njiit la di Ousmane Sonko fa xam ñu doon wax naan fa daw ak ma nga ca xàll baak ndeketewul dara du ci dëgg démbu daal fa ñoo toog rek Ousmane Sonko génne biir këram dem ca soxna yi nga xam ne fa ñoo toog buntu këram di ko garder ak a ñaanal naka noonu xale yu góor ndaw ña nga xam ne fa ñoo aar buntu këram ñoom ñooñu nag Sonko fa demoon doon saafuwante ak ñoom ak jaajëfal leen rafetlu seen taxawaay waaye laas yéen a kaay nee na mbooloo ko topp ca mbedd Ziguinchor ya fa bari ba jéggi dayo yor yor yéen kaay na sonk kay weddi na ñu ko doon waxal lu amut génn na nekk ci biir mbooloo mi te loolu ko amut fit du ko def l'observateur moom fa xamal njàngat ci génn gi Ousmane sonk génn réew mi yéen kaay na talaata bii di ñëw nag ngir dem ca tribunal ba Ousmane Sonko fa joxe ay charte yaaw seetal mooy fa soxla libertem dox soxlaam buy dem ca tribunal ba ñu bañ ko fit naa la ko bu ndoxatal ak jàpp ak yeneen yi ni mel te ñu koy àtte nekk ay yu maandu bañ a faral kenn ba tey yéen kaay bi di ñu xamal ne waaye yeewi askan wi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ñaxtu ñaxtu ya am Ziguinchor nag tax na fi mu toll nii iyaa ba fa jël dogal tëj école ya yéene kaay bi na li lu yéeme la ah. diggante Sédhiou ak Ziguinchor élèves duñ jàng fii ba le 25 mai te mooy yéene kaay ne loolu nag fa doy waar ndax jamono jooju seen yenam morom yi nga xam ne ñoo dëkk ci réewum Sénégal ñoom ña ngay jàng la mu ñaawlu moom ki fi nekkoon procureur Aliou Ndaw mooy jàpp gi nga xam ne takk deri fañ ko bëggoon a jàpp Ousmane Sonko ca Ziguinchor ko atte ko man ko waxee fa jàngale ay leçon droit ndax fa xam le ne article 338 fi mu toll nii fa xam beneen article bu ko remplacé te mooy 138 article boobu nag fa wax ne képp kuñ tuumaal di la attee kenn warul laa jàpp yóbbu ca kaso ga ngir après xëy dem yóbbu la atte la déedéet li nga xam ne nag moo mënta ñàkk mooy bu fekkee suba lañ la war a attee fa ngaa war a dem présenté wu ca greffe ba léegi ki lay attee nag su xëyee ci tribunal bi gis na yow mi ñu war a atte ñëwoo su booba nag attekat ba ci lay bind ordonnance ne kii fañ koo war a jëli andil ma waaye jàpp nit yóbbu kaso ngir xëy ñu yóbbu ko atte ko loolu yoon fa koo tere te loolu la gars yi bëggoon def sonko kon nee na loolu njuumte bu nag njiitéram Macky Sall ak la rawatina jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon lañ naroon a def àndut ak yoon de liy jeexal coow li yëpp mooy ne Ousmane Sonko fa war a dem ca tribunal ba ñu àtte ko Pape Ma Awa Diouf kenn ci farandoor njiitiram Macky Sall moo ko wax ci l'évidence yéene kaay keneen ko farak njiitiram Macky Sall Doudou Ka fa xam la ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ñoom it fa ñu amal mbooloo mu bari ndakaaru ngir tontu waa yeewi askan wi nga xam ne ñoom it fa ñoo war a dajale mars mbooloo mu bari le 26 mai avocat Ousmane Sonko tubaab ba ñuy wax Juan Branco fa wax ne sénégalais yónnee nañ ko ay vidéo yoo xam ne ëpp na junne lépp nag ay firnde la ñaawteef bu takk deri amal ci askan wi léeg si ko yéen a kaay moo ñu ko xamal indépendant yéen a kaay ne tubaab bi kay CPI boobu mooy tuut nee na foofu la bëgg a kalaamee nguur gi vox populi moom di ñu xamal ne Pape Amadou Keita xale lu góor li ñu faatoon fa ñoo xamal autopsie waaye docteur ya fa ñoo wax ne xale bu góor bi balu fetal moo ko rey yéen a kaay bi ne kon certificat bi fa weddi jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi ah moo fi waxoon ne de paaka ak jaasi moo rey xale bi xay mbokkam weddi ko na ko loolu du a kaay ne bi kay fa dàq weddi la laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Cheikh Yérim sekk këram ga ñu waxoon ne moom la ndaw ña lakkoon ca fitna ji amoon ca Ngor ndekete Cheikh Yérim sekk moomut kër ga de fa koo tayle ab banque bu ñuy wax Bimaawoo quatre-vingt-dix millions xamul lu mu fayee banque ba nangu kër ga ba xam lu mu ca jaay Cheikh Yérim sekk bi ko waa source a ooye téléphone mu ne leen kër gi maa ko moom su ngeen bëggee danaa leen wan kayit yi koy firndeel tàggat yaram final CAN U17 tey Sénégal ak Maroc ñoo koy xamal Europa League nag final ba Roma lay nekk ak Séville finalu Ligue des Champions moo cay bal ak City ndax bër ki démb Man City fa toroxal Real fa koo gàccal ndax fa ko tëral di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñeenti bal ci dara 4-0 tik tak carax-carax bii ya mel ni taw yéetéet non man City ñooy saay-saay mais ñi tuñu rey Real man de bettut ma woon ndax waxoon naa leen ko City fa mën Real def ko lu ñaaw laneen lu ñaaw lu am Sénégal mooy benn xale bu jigéen bu am fukki at ñett elew la fa feebar dem ca hôpital bu Vélingara ñu sampal ko raakol yi ñu nokkee léegi courant coupé machine ba mu doon nokkee arrêté rek xale bu jigéen ba mujj faatu maam jaara juuf la tudd libération moo ñu ko xamal yéene bi ne xale bi mënoon naa ñàkk faatu ndax lii dafa garaaw hôpital bu Vélingara seen groupe ba su courant coupé du tëb rek taxal boppam moom automatiquement déedéet ñu tey dem taal ko léegi diggante boobu nag malade mën na cee faatu néegu tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn waay daal fa bëgganteeg benn xale bu jigéen ñuy génn mu dem ba war koo takk xale bu jigéen ba daal di koy wor na ko fa ñukk ne yàkk bu naqari dem sëyeeg beneen xale bu góor léegi farawu njëkk wi nag bi mu ko yëgee xam nga nu mu defam fa daal di rey xale bu jigéen ba ba mu faatu ñàkk ba kanam allah xale bu góor ba nag jàpp nañ ko xàtte nañ ko tribunal giir ak dundam lay tëdd kaso yëf yaa nga amee sa diiwaanu moo ñu ko xamal man de faa xamul lan